Ah, mbokk yi kon dañ doon leeral rek ci suñu motionné et préciser on signé yaakaar naa liste bi ñu ko signé ñëpp mu ngi fi parce que format bi ñu njëkkoon a retenir du lii mais ñu ko signé ñëpp ñu ngi ci ñu nekk ay républicain ndax loolu li muy tekki mooy dañuy marqué suñu ancrage ci parti bi di APR bi nga xam ne suñu njiit président Macky Sall moo ko jiite waaye nag ñi bokku ci la grande coalition Benno Bokk Yaakaar bokku ci la grande mouvance présidentielle tey ñu ngi ci wetu ministre ay maire yu bari lim bi toll ci fukk ak juróom nekk mbaa ñu yónnee le président du conseil départemental nekk fi suñu papa Sidel Sow coordonnateur départemental nekk fi suñuy coordonnateur communaux ci Benno Bokk Yaakaar nekk fi ñu gis fii la coordination des enseignants républicains à travers nos xarit Pape Sara ak ñu koy gunge y waaye yeneen responsable politique yu ràññeeku ñii di ay mag waaye en ñi ay nekk ay gone ñi ci des nek ay jigéen ñu xam ne mbir dafa am té wax du nek dañu né nañu ko wax ba mu joté tay nak ci walu politique am lu jot bi mu joté nak ñun ñu ne dañu fi dajé ngir wone sunu décision bi nga xam ne dañu ko waxtaanee te mooy fa suñu yéene wan benn yoon kii di le président Macky Sall ginnaaw kon dinañu continuer di dox ak moom ci yoon bi nga xam ne tracé kon daal li ñu bëgg a wax mooy dinañu dajale suñuy démb ak suñuy daaw ngir jàppale le premier ministre Amadou Ba mi nga xam ne Sénégal gépp dégg nañ ne démb proposé nañ ko mu nek candidat la grande coalition bu Benno Bokk Yaakaar kon ñun da ci Linguère ñu ne bés bii di samedi wala bok dimanche di fukki fan ci wéru septembre 2023 nekul vingt li ñuy wax nouveau départ ndax nak ñun dañu japp né dafa am ku ñu tambali won

waaye nag wane ko ci référentiel unique bi nga xam ne tey ci la Sénégal bi sukkandiku muy le plan Sénégal émergent jàpp na ne Amadou Ba moomu capable na pour yeggale pour yeggale liggéey boobu. kon ñi nga xam ne soppe lañ ak militants yi ñu di leen waxal rek ne loo gis soo ci bëggee ndam dañu koy diisoo naam réunion bii tey département bi yëpp néewu fi ministre leeral na ko ñoom ñi nga xam ne nag suñuy soppe lañ ak suñuy militants. incha allah liggéey bi ci war yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko kon suñu engagement boobu dafay tege ci yoon lalu ci waxtaan ak ay gise yu yaatu ci biir département bi yépp ci loolu nag ci laa bëgg a dalale ànd ak sama naataango maire ak mboolem ñi nga xam ne d'accord nañ ci mission boobu yépp ñu dalal xelu président Macky sàll nag ci kaw tey yalla mo dogal ci département bi ñu fare mu di dañu botu ci gannaaw suñu kilifa non la ko mënu a tudde muy le ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale monsieur Samba Ndiobène Ka kon nak monsieur le ministre li lay xaar yaakaar li mission bu sel la ndax nak tay am na ñu bari ñuko wax ci salle bi ñen ñi sax dem nañ ba seen xër yóbbu leen ci ne xamuñu président Macky Sall ñenn ñu ne amuñu yitte ci Amadou Ba ndax yow lañu xam kon nag taxawaay bi dafa war a mat foofu ci seen diggante suñu candidat ak ñun ñi fi nekk ñëpp suñu liggéey nag bëgguñ ko teg ci nelaw yandoor ba nar gént jàpp na gént googu mooy dëgg dañu bëgg a wane ne ku xool ci saal bi ku dégg ñi ñu lim ne teew nañ fi nga mën a yaakaar ne dafa mel ni ndam joxe na loxo ndam nag bu la joxee loxo nga téye sa loxo wax dëgg yàlla bul wax ndam dara yaa doxewut na nga war a def kon bu ñenn ñu ne lu ne mën naa nekk ci wàllu politique man de dema ne nañu seetlu rek am na bindkat bu ko waxoon ne bu ñuy seet lan moo dox ci diggante politique ak élection ku ne xam na ne élection dañuy wan wàññi ay xob rek carte dof beeg bu nit ki yépp a yem kon nag tey ñëwuñu ci temps politique kese boo xam ne dañu ne peut-être mën nañu jël jëmm ñu ne maître Amadou Kami lii lay peese waaye tey dañu nekk ci natt ak wàññi ay xob ku ëpp la dem kon loolu aussi ñun mën nañ ci daral suñu xel bu baax a baax leneen li ci des. ñi ngi wax président Macky Sall ne ko xëy na su tëddee mun na nelaw waaye bu mu yaandoor gëm nañ nag na ñun lu ñu téye lu ñu gëm la ndax nag wolof njaay waxoon nañ ko sànq dafay wax ne ginaar du topp kuy taxani bàyyi kuy bojj tool bi nag président Macky Sall da koo xàlloon ànd ci ak ay jawriñam ku ci mel ministre sàmm Ndiobène Ka ñu di ci liggéey bay defar ba mu jak ba nga xamne tay goob rek mo ci dess wax dëgg yàlla waruñu yaafus waruñu sagal soccet di ak nak ku nek mi ngi jatu ngir bëgg nak li ñu duñu ci goob dara kon nañu vigilant yok suñu taxaway ngem ci suñu gannaaw kilifa le ministre Samba Ndiobène Benka inshallah su ko le soir du 25 février 2024 Nous élire le candidat le président Amadou Ka cinquième président au premier tour ñoo ngi leen au premier tour Inch'Allah, nous ñu ngi leen di sant